xanaa moom ginnaaw ma gën ay nit yor na ni million ay nit yor nañu di jàng kaani di jàng ay nit di leen raamal te tey lii loo nga am amuñu ko te pourtant yooyu loolu te am loo moom la daa yëngu dégg tax nit boo ko gisee muy dem ba ko muy dem yàlla dafa yor ay bagaasam te di ëmb te fu ko neex na def ñu ci biir dox ñu ngi ci biir nit ñi ñu ngi ci biir nawet ñu ngi ci xar yi ñu ngi ci biir nit sama xarit bi kan yow gaynde loo gis dara kontaan naa ci yéen sama xarit baa nii bëgg ndongo international kenn yow ci réew mi mu réew ndongo loo fii nga ko def da doo bàyyi loolu goro koy def non man yow lay alal njukkal wallaay ndeysaan ndeysaan kontaan naa trop géré nag bi géré mbir yi sonn nga ci trop bilaay bilaay bilaay ndeysaan mais nag xam nga lépp rek ndeysaan grand yi la tamit xam nga ñoom ñoo jël seen xaalis bu bari kamu ngajak di grab dealnya gannaaw Ouzin Assane Malick Diouf sunu yaay Yampakoura Mama Binet Diop ak fan si ndongolo yëpp ku ci nekk li nga am nga jël def ko ci moo tax ñu ñëw gérer ko yàlla dimbali am nag xam nga def li ñu war a def lépp di kontaan ci yéen gis nañ taxawaay bi ñu ngi teewee. ñoo la amee bilaay yal na leen yàlla fay kontaan nañ trop ndongolo yàlla na ko yàlla xaar àjjana leeral bàmmeelam leeral ginnaawam si barke Sëñ Fallou Mbacke kontaan ci yow. jaajëf jaajëf sëñ bi bëgg sama xarit defe ni euh, ay bët yu muur la xol bu gumba la ñu wax xol xol mooy gumba. dëgg nii dajjaar nii di xool nii. dëgg leen père nii ak gumb nii. ak batus kooku ku yàlla nattuwee muy dox nii rek mais jëm nga xol bu gumba mooy gis lu baax nit ñi di dox lu baax jëm ci lu baax ñoom lànk-lànk kàndaare ñu tudd guddoo jëlee. dëgg la dëgg la loolu mooy gumba. mooy dëgg dëgg te sëñ Bamba yéen gumbawu leen. Mm-hmm. te ndongo daal leeral ginnaawam da koo leeral ñuy dox nga xam ne yorub sëñ Tuubaa rek la ñuy siyaare bàmmeelam ca Tuuba Cheikh Ibra Fall ndongoloo di béy ñu ne kër yi siyaar ko ñun ñoo di siyaar di joxe ko ñuy joxe adduna ñëw leen siyaar. kuy bàmmeelu siyaar ko. pourtant de bàyyi ma ñoo ko toog de bàyyi ma ñoo ko ko làqoon liggéeyal sëñ Tuubaa fop xam nga maanaam ko làqoon liggéeyal sëñ Tuubaa fop ña nga ci armée waaye ndongo ngay dégg waaye nag Euh, buy dina jël xar faam ndax nit dana jur doom yàlla def ci biir doomam wàll yi yonent bi salaa salaam moo ñu gën ñun ñëpp waaye ba yàlla di bind da bind ci ñu baax ñu baax ñooñu moom moo leen gën am lu ñu amul ndongo yàlla mëri ko ko jox mëri ko jox mëri la yàlla fayee suñ tubaab ndongo mëri yàlla ko ko fayee pa góor boobu moom alaaji ndongolo kii Gumba Seck alaaji um, um, ndongolo alaaji góor a Seck bàyyi góor a Seck ñoom jaloolu urus gis nga ñoom yàlla da leen a bindoon ñoom ndaaranu ndaar boo ñëwee fekk ci ndox boo ñëw dina ci fekk ndox tànk naa parce que ñoom xam-xam la nekkoon seen bopp yi barki suñ bamba da nga daan toog ñoom di dégg téere man gis na man boo gisee ma bëgg ay waayu kii dafay dégg Ndiaga Mbaye sama place Ndiaga Mbaye dama koy déglu Ndiaye Sam Mbuub laay dama leen di déglu. loolu ñooñu lay déglu. barke Sëñ Bamba xoolal alxuraan la ñuy way loolu lu mu way boo nekk mbir alxuraan fekk ko fa. bokkut ak taaba taaba yi nga xam ne day taaba sama sama séer yi sama xol sama nijaay sama bàjjan yooyu non wayu lu loolu nekk barke Sëñ Bamba wayu lu loolu ñoom parce que mbëggee rek lañ fi way ay mbëggee te mbëggee da doon raaf ñun suñuy baay dina ñëw bëgg suñuy maam ñëw bëgg suñuy baay dina ñëw bëgg ñun ñu ñëw bëgg lu bëgg di bëgg si ah danoo bëgg bay bëgg de dee léegi nag li ñu war mooy danoo war a way loo xam ni dañuy doon loo xale yi. man damay way ñuy toog ak jaar buñ ma ne ko gone mën naa ma ko sa baa sa maam ndogolo de ma ne de wayal ma yoo xam ne foo ko déglu mën nga caa jëriñ te dee déglu mag ñi lu tax ngay déglu mag ñi man ko day ku jaar ci taatu garab guddi di wax la muy meññ da nga caa jaar xamal ma la ma ko loolu boo déggee mu di ko wax maa nga tax muy wax loolu. ndax man daa dox doxati fu ne dugg na fa ne fakka sonal na lu ne jaar na ci mbedd mu ne heure bu ko jaaree na jaar na ci lu baax baa mu jaar ci lu bon soo ko dégloo naan ne mbedd bi na ma wala gaynde dàqoon na ma wala ba ma fa demee ah, ay wóyoo ma fa karam alors wala mun na mbedd bi de boo ci jaaree moo gën bii jaarul ci bii nga jaar ci tedd moo tax nag jëru sori donc daa way lu ne daa way lu ne lu ne lu ne jéegu fusoo lu ne fi ne jéeg jéeg lëmb di kër yi jàmbur yi dañuy jël ma kaset bi déglu seen nii fekk sëñ Tuubaa ñu lëmb di kër yi dañuy déglu bi xam ne ana man mi puso a doon lañ puso lu mu doon bi dañuy ñawe di ñaw waaw nga xam ne bu ñawee da sippi ko boo jullee sa dara ko feeñ téer a ko waral ndax ñaw wala dëgg téer a ko waral ndax ñaw kon ñaw dafa am solo mu way ko moom kon gis nga lii ngeen def nii lii ngeen def nii parce que sëñ Bamba bu leen ko fekk ñun ñu waxuma la dara mais daal di lañ lañ ci sol ñun ñun daal di lañ ñii ñëw nañ waxtaan teg man ci place toog nañ fa waxtaan waxtaan mu yaatu woo xam ne tey dafa dafa bari dafa bari koo xam ne nii asamaan la tey kii bu jël bu boo ko joxoon micro bi waxee ci ndongo nga ni moom dong moo ko xam nga jox kii nga ni mu ni moom dong ko xam nga jox kii mu ni moom dong ko xam xam nga lu muy nuru la moom asamaan may may ma ma xool nii lii asamaan. foo toll seen. ndax sa appartement bi nga tiim sax yow moomoo ko mooy fi nga xam nga suuf dafay lakk nii rek mais am na lu ko tiim ca kaw asamaan moomoo ko toppal ma xool dong nga yore amul leneen. xamal ndongo nag noonu la ko yàlla may noonu la ko yàlla defal moo tax gis nga teraange bi ngeen di def nii bu leen defee ne dañ koo xeeb xeebuñu ko. parce que seen ko. ndax li ngeen wàcce kaamil yi ngeen wàcce fii sa yaay ngi woon fii ci kër gii doon taalibe seex daan def lu ne tey bi ngeen wàcce kaamil bi ci këram gii barkeb sëñ Bamba xaw ma moom ndongo ñoo bokk appartement wala déet wala ñoo ko jàkkaarloo mais dinañ xam ne ñoom seen appartement yi tey jii guddaal la nga dem fi bàyyi bàyyi ñu toog fi di fi jàng alxuraan bàyyi may euh, sunu yaay euh, kii mbay mbay mbay gay si la kii la nekkoon man moo ma daam fàllu bi ma ko di wooye moo ma ko wooye bi ñëpp di ma ko xam tey jii mu ngi fi duñ toll di mbir uufoon biin man ñi fi ne bu mu toogee di leen tudd di tudd day bari te yàlla def na tey jii ñun la waroon tey ñu dajaloo ñaanal man ñëpp yéen ngeen ñëw fi ak seen i ak seen i jànjoor ak seen i bagage ñoom ñu ko tëj suñu dëkk dëkk bi ah di jàng alxuraan di ko def nii yéene ko suñu maire yi barke sëñ Bamba fekk damaa ciblé

suñ dee wax nga ci am contentement bu wér daal nag li nga wax si Ndongo laa ñëw rek ndax ndeysaan ba mu tollee si wàccaay ba mu ñëwee jox sama papa Mercedes bi nga xam ne maa ko doon dawal ndax saw dafa ñëw indi Mercedes bi du gis jëndaloo sama papa ko jëndal ma quatre cent cinq intérieur cuir boobu moo mag ñu nga tudd fii moom lañ bëggoon alaaji Koumba Sène alaaji Ndongolo alaaji Mbaye Sène ndongo ko ah fekk Mercedes bu yow du yor moo gën a yéeg haut niveau mun ko tey nga bàyyi ma jëndal Mercedes 250 bagan daal mu ko déedéet jëndal ma lii oto boobu moo gën a neex ndongo sànni ko caabi dem jëli sa papa di ko ko dama ba ko mu ko sama papa ni ko ba nga ba nga yegg fekk mu mu yegg si Dakar am benn BM bu mu bëggoon mooy bi mujj yor nouveau modèle doon ko bëgg topp si waa ba am lu mu ko defee waa bi ko lis desoon aalo ne sa papa di aalo mu daalaat oto bi ànd Omar Sow ñu waat Tuuba lépp moo fekk mu yeesal papa ne ko papa oto bi ma doon wër moom la ki si ginnaaw di ko wër desel ko dara moom la ma ma si des may na sa papa ne ko gisagoo dara jour boobu ñu ànd ci Modou ku ne xam na du dox si jaaxaar Cheikh Abdoulaye Mbacke mu sëriñ Soy du dox si foofu sa papa ne ko tey ngay xam mu si ñoo xam ne kuy taxaw baru Sëriñ Tuubaa bee du ko nag kenn muy Modou moom rek moo am sa ci diggi barab bu bu mag bi parfum sa papa ne ko kaa yóbbu nga si moom su boobu maa moom ñoo ànd koma saw ak sam papa kase jour boobu la tegal sam papa soo nga ànd ak Youssou Ndour moom mu way te Youssou wayagul parti vidéo bi ni ko papa déglu li ma ànd ak Youssou xam sa papa ku ne xam lu meloon si musique waaye dugg ndugg lu tax na def ba di ko di ko ndax boo déggee wooyu doo ko bëgg naan boo yoroo yeewoo alalu borom barke sa bopp sa papa ne ko ñetti baal nga dañ lay doo jëriñ sa bopp sa bopp yaru yeewu la mu wax mooy ñetteel bi waaye du ko tënk si benn parti jour boobu bi ñu ñëwee ba comme ni su Serigne Cheikh Moussa Saliou lépp la ma ko fekk yàlla daa dogal ma fekk ko. ñoom ñaar comme que yàlla am na lu leen mayoon si diggante doom ak bàyyi ñoo ko am xaw a am baatin tuuti mu yëg ko man sama am lu mu xam boobu nekk ci ndongo mu ngi si wàccaay barke Seydina Mouhamed ak waxtu bii sama bàmmeel laa taxaw sama maanaam waxtu jour boobu war mu si woon teg semaine te ndongo nelawul sama moo ni ko moo ni Omar wàccal utal ma garab si pharmacie bi nekk kër suñu Cheikh bi nekk si commune mu waat jàpp nag ne xale la waaye li muy kàll xam naa ko sa papa ko ñan baalu mu ñëw ma rek ba nu génn jamono yii parce que suñ tubaab doo ko di ko fi ne digg bi mat na sëkk mais bi mu bi mu ñëwee ba wàcc sam ba ñibbi la sam doon jooy loolu ndax jour boobu la ko gëj a gis maam si saa nga xam ne kon kooku moom ak waajurum bu góor maanaam leneen la woon ndeysaan yàlla dogal ma ma ma nekkoon xale ba pare fekk loolu ndax marché boobu ñu ko joxee muy essence maa ko doon dawal essence bi xaw a sa papa sa papa ne ko kay changé oto bi boo may jox danga jox lu mu yor lii moom daa nekk si man lii yor yaa ko a yor trop seer loolu cent Wow, boobu ndeysaan mu ànd ak ñeen ñu ko deux cent cinquante bi may nelaw mu jox ko caabi bi gaar oto bi lañeen taal maa sa def bi dee indi Dakar sa papa ñëw yee ma ne ma am nga gan ma ne ko gan ak lan la mu ne la mu ne ma indi nañ la beneen oto ma ne ko bon oto ba ñu bëgg cent quatre-vingt-dix fekk man boobu laa gënul bëgg ndax mooy oto gone mu won ma deux cent cinquante bi ba dem daal ma ne ko lii moom bu yóbbu nga teel a sa fóor tool ni lu ma si ko daw oto paa yi mu ne ma xam nga sama papa ak ni mu neexe woon mu bëggoo ma yéene lu baax ndax oto bële mënuma di jënd essence day pomp rek yow na ngay pomp rek muy jeex ndeysaan waaw ndeysaan ba ba ni yàlla dafay ñu jël waaye nag ñu duus si nag li moom xajul si cëñ waaye daa daa daa daa yell rek ñu fàttali soppe lii loo xam ne dund nañ ko moom ak ay waajuram comme ni ko ñu ñu tuddee waaye yooyu ndongoloo bi doon ndongoloo la bu fekkee wuy suñuy noor ndax ñun ay gone yu ndaw la topp na sax si moom waaw si taala topp te taala ndongo magee na lu bari kon ñu ngi santaat daal bu baax waaye di leen wax ni Cheikh Diagne nii ak euh, Fallou Filawo ñi nga xam ne moom la gaa yi mu jiitu dégg yebal ko ah ak yeneen soppe moo ko Cheikh Diagne mii ah xëy de man wér na ma ni loolu lañ ñaan sëriñ bu bàyyi jànkatu xasida yi mu may dem ko waaw ñii moom damaa bëgg seen xewal yokku ndax bu ko amee xam naa fi ko jëlee billaahi wallaahi woote la nu ndongaloo tànn biir woote wuñ ko ndajal tëgg ko fekk lii moo leen ñor ak weeru koor dañuy joxe ndongaloo ay ndogu le 16 janvier ñu wàcce ko kaw loolu nag ku koy defal doomu jàmbur boo xam ne sa aadama kaw a ngir gëjee cofeel rek dox ko kooku daa mat ñaan ñaanal sa mat a sa mat a bàyyi xel barki sëñ Tuubaa ñii danoo mat a danoo mat a sant waaw ndax loolu mooy commune dëkk xale bu ko doog a muy ñii waaw moom l'international moom bu ñu lu mom mom da lay wax comprendre kon waa wa kee moom

suñ kër moom mi suñ tubaa tax waaye dafa jàngu ñoom sëñ Saalif yi la ñëw ci biir Mbawol dëgg la may jàng mu gën a ñëw ñu fasanti kóllëre ngir xasida yi waaye li gën a yokk kóllëre dafa toog benn jour gis ma stat yi vidéo nangu la mu ne kon kii barke sëñ Tubaa bis bi moo ma ci njëkk indi yaakaar naa du ma ciy ca suba ga laa dem Burkina Faso ndax dama caa ñëw ba ma fa jógee laa def daj bee jaar ren jii yàlla xam na ni ci oto bi laa delloo ñëw këram rek ñu àndal ñëw waaye yéene ji la am ci ñoom sëriñ bi rek lan koy seetal ndax bëgg gi nu bëgg Ndongo waaw te nu te nu bokk lépp ndax lu ñuy gone gone xam na nu maam Sidi Fall ak sunu maam Abdoulahi ñun xamit bàyyi Aliou Fall mi nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon xeer kon loolu xamoon na ko ñoom cofeel ci ñun lool billaahi wallaahi di di di bëgg bi léegi bi ñëwee xaalis bu bari damay envoyé wadi bendarno waaw ah, saya karena naa ñu bëri duñ ko demit noonu barki alxuraan te bu ma ñëwee la ma fi def sax du tax mu demee noonu ak rek billahi kon dañ leen ñaanal sa borom defal leen di ku di ku mën wax lu baax te di ko di suñu kilifa waaye bu dajeeg ñun ci li ñuy dimbali rek lay dox. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. kase. benn daanaan la quoi. daam benn benn olofal bu ma ma ñaanoon ci bi ñuy ñëw. moom laa leen bëgg jàngal te it loolu olofal boobu day wane solos bis bi ndax olofal boobu